wa rahmatullah asalaamaaleykum lundi 11 mai 2020 ak yéen ci li kaay yi sunu fa lañu xëy doore ko moo xam sunu lamb la journal record wala leewtoo point net ku ci nekk daal tey ba nga xëyee ñëw nga ci ka nga xam ne moo di monsieur le ministre monsieur Ba mi yor woo xam ne seqoon na ko ak waa ANPS mu mel ni ki nag la mu wax daal leer na nañ li am solo ba am solo daal Matar Ba daal mbirum Alioune Sarr ak demam wala loo ci mën a dégg yokkum saison ba moom daa mel ni fi mu nekk nii amul lenn lu leer loo jëlee ci moom maanaam daal suspense ba moom mu ngi koy gën a téye daal di ko gën a denc wàllum Alioune Sarr moom li leer ba leer la mu wax daal ne fi mu nekk nii moom nekkuñ ci heure boo xam ne dañuy régler ay problème wala ñu cay wax ci ay limon saas ak kuy dem ak kuy toog nee na loolu fi mu nekk nii moom mën a geesu cee wax saison balance tamit wala saison boo xam ne book dafay jaar jeex tàkk lool tamit nee na teel na fi mu nekk nii ngir ñu wax ci moo xam ci Leewtoo point net la moo xam record la moo xam sunu làmb la Matar ba moo fa nekk tey waaye dañuy dellu fa nga xam ne wala boog ñu ñëw ci sunu làmb ka mënu xëy wan mooy ki nga xam ne ni moo di Diène Kaïré moom nag boo bëggee dégg-dégg daal opération raté daal la ko yëglikaay bi tudde koo xam ne la daal ay mbiram fi mu nekk ni takk na suuf ginnaaw bi mu bëree daaw mat si niil ren mu doon xaar combat faru ko am mu mel ni kon daal année wala boog ñàkk bëre moo koy xaar sunu làmb xëy ñëw tey wax nu lu mel ni kii noonu keneen koo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom ci wàllum làmb fi mu nekk ni daa mel ni taxawaayam tamit fi mu nekk nii ah maanaam affaire am daal fi mu nekk ni moom du lu neex ndax nag fi mu nekk ni combat ak Ama Balde waxees na ko te lenn luy avance encaissé wu ko muy Modou Lo sunu làmb xëy ñëw tey wax nu ko keneen koo xam ne nii moom ciy jafe la nekk ba tax muy yuuxu di woote wallu muy Jules Balde Senior ma nekk ca Pikine école Fallaye Balde mu ngay woo Matar ba ne ko ngir yàlla ak yonent bi ñëwal jàppale ma parce que nag boobu ba tey ngi tëdd feebar te mbir fi mu nekk nii day mu ngay bëgg jéggi dayo metti daal mu ngi koy bëgg a def leneen loo xam ne wala keneen koo xam ne nii moom jàppal sàmbay lañ koy wax sàmbay Fall moom mu nga ca TV ba tey yëg li kay su lamb andil ñu ko moom nag Tyson ak Yékini daal lay waxal jàpp na ñaar ñi moom xalaat seesul wala am xel di xalaat ñuy jël li nga xam ne moo di CNG bi di ko jiite ci ab palaasu Aline Sarr Sambay borom Sam production moo xëy ñëw wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ba tey gis nañ ko ci sunu laal wala boog ci journal sunu làmb muy boy ñang bu déggool moom itam day yëglikaay bi ñëw na ci moom waaye dafa wax fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV Lutte TV waaye sunu làmb ñëwaat mu mel ni ki nag kerma mu demee fa nga xam ne moo di parcelle moom di jaale ka nga xam ne moo di Modou Lo yëglikaay bi jàpp na ne day wax yam wax wax yu daw a daw yaram la wax la yoo xam ne daal yu fair play ndax jàpp na ne ñoom mbëri ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi liggéey moo leen di boole ñu def ko waaye nag moom bu jeexee day daal di jeex maanaam daal ku ne ci naqar dañ koy bokk ak yow ku ne ci bànneex tamit ñu ñëw ànd ko ak yow ba mu jeex tàkk loolu mooy ay waxam ñeneen ñoo xam ne moom ay xale lañu wala xale la bu nekk fa nga xam ne mooy ca Pikine ko booy nang dëkk ñu naan ko Boy Sil Boy Sil nag moom la mu xëy di wax daal moom école Fallaye Baldé la moom daal dina pare ngir jàmmaarloog Abou Niasse bu jàmm gëm lam saar ak Nokia bu bawal ne na ñii daal ku ci ñëw Boy Sil ne na pare na ngir bëre ak yow loolu mooy li nga xam ne ni moo di ay waxam waaye bu buñ fa jógee dem fa nga xam ne moo di record record moom tafaatin lañ fay fekk mu mel ni ki tafaa nag fi mu nekk nii daal ah, ay mbiram soo bëggee dégg-dégg daal daa mel ni ci wàllum VIP bi ngir mu bëreeg Modou Lo wala Eumeu Sène lu ko te tëcc la yëglikaay bi na boo xoolee VIP yi nga xam ne jot na bëreeg ñoom moom ñaar ñooñu bokkuñu ca laalul Modou laalul Eumeu xëy na kay bokk xanaa Bombardier wala ka nga xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 waaye bu dul ñooñu moom keneen koo xam ne VIP daal daa mel ni moom jotuta laalante ak yow yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu ko mu mel ni ki nag ka nga xam ne tamit moo di record ñëw na ci ñàkk ga nga xam ne Modou ñàkk na ko way juram ak na nga xam ne noonu la fa nit ñi doon ñëwee jàppal ministre ba tamit président présenté na ay condoléances maanaam daal jaale na ko waaye li am ba des daal daa mel ni kër ga nga xam ne mooy kër Modou Lo ca parcelle moom waa police sécurisé woon nañ ko bu baax a baax la ko waral nag mooy maanaam dugg baak génn ba lañ doon bañ nit ña bari record a xëy ñëw tey wax nu loolu ba tey record tamit ñëw na ci koo xam ne daal jàpp ne reporter la nekk ca Leewtoo TV ñi koy wax Babacar ci wàllum koor coronavirus ba moom daal daa mel ni ki daal xadd a moo di pomba waaye tamit lekk gu bëri ga moom da koy moytu nee na ci rawatina nag heure bi nga xam ne mooy heure ndogu ba ndax la koy waral mooy tàggat yaram ga nga xam ne moom lay def 23 heures moom lu mën a xew ceebu jën bu weex ba moo koy dàqal yëglikaay baa xëy ñëw tey wax ñu ko ci waxtaan woo xam ne seq na ko ak moom waaye buñ ca jógee itam jàppal li nga xam ne nii moo di quartier général wala grand plateau moom bëgg na di ko seetaan yëglikaay baa xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki noonu mu mel ni ki daal waxtaan wa yaatu na ba yegg ca lool waaye Aïssa Faye man dina la laaj tey yow boo ndogo ba pare ba naafi la ba maanaam sab reer la ci gënal ceeb bu weex wala bu xong waaye faal faal maa ngi lay ñaanal yal na la yàlla defal jàmm may la gudd fan may la wér yaram faal yàlla baax na les waxul Youssou Ndour a ko salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nii bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen euh, ñaanal koor jàmm comme ni ñu koy defee chaque jour tey nag dañuy ñëw ak yéen ci seen euh, jàngat ginnaaw bi Babacar defee revue de presse pare Babacar nuyu naa Chéri Tane. <laughs> maa ngi lay fay Aïssa Faye Chéri Moussa Niang ah, Chéri Mohamed waaw Chéri Tane lool da neex na ma trop macha allah ndax man nopp naa ko lool te moom xam naa ne nopp na ma lool Aïssa mm. nuyu naa képp ku ñu suivre ci Leewtoo TV. waaw euh, Babacar dañuy ñëw dugg si yow ak euh, waxtaan bi njëkkee ko ci ministre Matar Ba comme ni nga ko waxee tey euh, fépp foo dem ci yéenekaay yi mi ngi fa parce que dafa ñu nekk li nga xam ne mooy invité groupe WhatsApp bu ANPS fa la nekkoon ci week-end bi ak ñoom mu ñëw nag yu bëree bëri mais lu wax na ci départ Alioune Sarr ak li nga xam ne ni bi. waaw mu mel ni ki waxtaan wa yaatu na comme ni ñu ko waxee ANPS ñoo ko dalal seen groupe WhatsApp mu mel ni ki mbir moomu nag. am na ñu bëri ñu ko reprendre Leewtoo point net record sunu làmb waaw bu dee ñun nag ci côté làmb ji xëy na ci la ñu ñëw mooy maanaam dem ak Alioune Sarr yaa ngi dégg moom jàpp na heure bi du heure bu ñuy waxee ci loolu yaa ngi dégg du heure ay limousage ak ay jàppal bàyyi la kuy dem ak koy toog yaa ngi dégg loolu nag defe naa su ko waxee xel mën na koo nangu ndax li tax mooy euh, fi mu nekk nii defe naa benn combat moo am ci àddina bi rawatina réew mi nu ne mooy combat coronavirus waaw olof nag nee na fu ñuy feese ay sa kenn du fa dem di fa yi góom parce que dañ la dul déglu sax defe naa loolu tamit mooy li mu wax ci saison boo xam ne dañ koy prononcé wala dañ ko fiy yemale yooyu yëpp defe naa fi mu nekk nii wax ci pour man jaragu ko non non il faut ñu fexe ba ñu toog ñu xëy ñu ne cas contact amatul kaa importé amatul cas communautaire amatul ñu mën a ne ci jàmm malade yow wér étudiants yi dégg su keroogee nag lu ñuy def ñu reprendre ko xool nu koy defee man daal fi nekk nii defe naa loolu mu wax ci Leewtoo wax ko record wax ko fa nga xam ne mooy sunu làmb mooy wax ji nga xam ne xel war na ko mën a nangu. waaye nag Babacar profité na si tamit euh, dalal xel yi ñeen ñi parce que nee na du ñu reprendre activité yi te ñu waxtaan rek la lépp li nga xam ne ni mooy problème wala bokk euh, malentendu ñu wut ci ay solution jéem a dem ci base yu baax. bien sûr loolu moo war a ama ah parce que tamit tey comme yàlla def na saison baa ngi doon dem coronavirus ñëw na coupé na mu taxaw. ñu ngi ci corona bi su corona bi jeexee ak jàmm bala ñuy tëbaat te coow li bëri na ci na toog na dem jaxal bàyyil ak yeneen jafe-jafe c'est normal balaa ñu sëggaat di bëri wala promoteur yi jaxawaat xaalisam essence yi dégg ñu fexe nag waxtaan teg mbir yi ci nga fi nga xam ne fi lañ ko war a teg ñu war a toog toog ñu war a dem dem pour que bu mu jógaatee mën a jóg ci jógin boo xam ne ñu leen am yaakaar daal dañuy jógee foofu tamit dem ki nga xam ne ni mooy Modou Lo suñu lamb nag ñëw na ci moom xamal ñu nag saison bi mu def ren du saison boo xam ne ni dox na wala mu am ci dara parce que

combat bi yaakaar naa am na ci ay base yu leer a leer yoo xam ne euh, ca la ko teg ndax dañ na mag buy naan ndox mu tàng moom suukar saa tax waaw. waaw Babacar dañuy dem seet tamit euh, Diène Kairé moom mi nga xam ne nag euh, ren lañ ko doon xaar pour mu rattrapé wu ginnaaw combat bi mu livré woon nag ki nga xam ne ni mooy conch ñu gis ko nu mu demee ñëpp doon leen xaar ci ñu ñëwaat. saison bi nag daal na demee na leen ci ñoom. waaw daa mel ni daal euh, waaw parce que daaw dafa mat si ñu nag Quench comme ni nga ko waxee mm-hmm. xëy ñu doon xaar mu ñëw pour mën a taxawaat beneen taxawaay mais yàlla dogal na amul combat te corona bi ñëw kon day daal di mel ni daal ay mbiram moom itam ah day daal di bëgg a takk suuf ci pour mu am adversaire actuellement bëri parce que euh, dana jafe lool fi mu nekk nii waaye nag xëy na bu yàlla defee ba lii yëpp jeex xëy na su keroogee dina war a a adversaire ndax boo xam ne mi itam ci làmb la bokk te xale ne bu osé def kon yaakaar naa a jafe balaa ñuy jógee ci sunu lamb dañuy dem euh, seet ki nga xam ne mooy euh, Jules Balde Junior moom tamit euh, feebar depuis li nga xam ne ni mooy un an nee na neuf mois mu amee nerf sciatique tànk yi bañ mënatul dox bu doxee nee na cinquante mètres sax bëri na xam nga dem na boutique ba dañ ko mujjee jël si foofu parce que mënatul dellu si mu nekk feebar boo xam ne mi ngi koy sonal te nee ne na ko Matar Ba jàppale. waaw Matar Ba lay woo pour mu jàppale ko moom Jules Balde Junior dama naan sax Matar Ba la woo waaye nit ko mën a jàppale képp kuy bonne volonté. ngir yàlla demal nga jàppale ko parce xale la boo xam ne ah fa bi nekk ci ginnaaw mu nekk kon ku am avenir làmb yàlla dogal tey mu amee problème mu nerf sciatique bu mënatul dox dox bu baax kon yaakaar na yaa ngi dégg waaw te nañ benn doom bu góor la ci way juróom kon defe naa ne itam vraiment ku ko dimbali daal yàlla ngay defal parce que dina toll fa xam dina soxla ndimbal yaa ngi dégg te actuellement xale la te soxla na ko kon Matar xam naa dina dégg loolu ak ñeneen ñi nga xam ne ay bonne ay bonne volonté lañu parce que tamit ndimbal dafa baax trop te dafa dañ koy jox ku ko soxla nag ndimbal ku ko soxla yaa ngi dégg kon defe naa muy Jules Baldé Junior même Fabi Fellère bi ñu ñoo ñëpp te ci as bokk milieu bi te ñu bokku teen ay ñooy laxasoo ay goj daal kon defe naa Jules Baldé Junior il est l'heure que tamit gars gën cee dugal seen loxo jàppale ko te yàlla tax quoi hmm. waaw Babacar comme ni nga ko waxee rek ñi ngi woo ñëpp képp koo xam ne rek mun nga ko dimbali nga dimbali ko mu faju ba mën a dellu si waat si ay activité am allah dañuy dem fële ci record fekk fa Abou Ndour Abou Ndour nag euh, daal di ñëw ci ki nga xam ne ni mooy euh, Tafatine amagul combat ak ki nga xam ne ni mooy Modou amagul komba ak euh, Tafatine mu ne ak Eumeu Sène mu ne nag tey nag c'est le moment ou jamais pour ki nga xam ne ni mooy géant Bawol bi mu jéem a lijjanti combat ak ñaari mbër yooyu waaw ah ñooñu moom laaleegul ak ñoom te nit ñaa ngi wax xaar seeni combat boobu ba tey nit ñi xaar nañ fi diggante ak Modou Lo bañ demoon ba benn moment ba ne sax combat ba dana taxaw ñu dem ba loola yàqu tey actuellement ñu ngi naan diggante ak Eumeu Sène dara dàq ko waaw defe naa nag loolu moom xel war na ko mën a nangu actuellement war na mën a jéem a lijjanti def le tout pour ñaar ñooñ mu am ci kenn muru nag xëy na mu ngi ci leneen waaye ki nga xam ne mooy euh, Eumeu Sène moom amagul combat te defe naa diggante Eumeu ak Tapha Tine bu taxawee da nga gis làmb ñu neex tamit voilà waaw Babacar ñu dem ci yow la ñuy jëm parce que fi mu toll nii Babacar mu nekk gënu ab ndur ci rubrique euh, Ramadan ba ab Babacar daal fee ñëw nag euh, daal di wax ay bëgg-bëggam daal di wax ay émission mi nga xam ne moo koy wéttali ci koor gi Babacar lu wax ceeb bu weex. waaw parce que ceeb bu weex xam nga rek euh, ceeb bu jën weex dafa dafa pour man moo gën a neex a digérer mm-hmm. te man damay bëgg di lekk lu nga xam ne digérer ko day yomb mais balay loolu damay nuyu at Ndour ah. waa di nuyu waa groupe Futurs Médias parce que record foofu la bokk. ci groupe Futurs Médias la bokk di ko wax mention spéciale parce que tamit ba mu ñëwee record yokk na fa bu baax a baax ci wàllum lamb gis nañ bu carrément liggéey bi mu fay def bu magnifique bu rafet a rafet abu ma koy féliciter di féliciter groupe ba yépp di leen ñaanal jàmm xam nga euh, ceeb bu weex bi nag li ma la wax rek digérer bi <laughs> waaw waaw xam nga man moom lépp lu nga xam dama koy lekk te mu neex a digérer daf mooy gënal quoi mais dafa des fois dafay am ñam yoo xam ne ay sa boo ko lekkee ba pare après digestion bi day nekk sa problème voilà te yooyu dama koy moytu ceeb bu weex tamit xam nga bu àndee des fois dañ cee composé yoo xam ne nii dafay <laughs> waaye bëgg beeg ñoom seen yooyu quoi dafa dafa am solo <laughs> waaw baaba ngeer xëdd bi nag banaan ak pom oyoful ba loolu tax boo ñëwee fii tuuti sonn xiif non no non pourtant man ci laay gën a nekk dama seetlu xam nga dama doon xaddee lu diis doon dem di xaddee des fois lu diis ma dem xool su ma xaddee sama estomac bi ba pare du ma damay teel a sonn yaa ngi dégg ñu am ku ma waxtaanal mu ne ma banaana dara gënu ko ci xadd te pom ne nañ daaw bokk si ñam bi nga xam ne ku ko mën nañ mujj sa biir yaa ngi dégg ma de def ko benn yoon gis li ma may ma gën ci am énergie gën a mën a téye sama bopp ca laa jóge nag ay at a ngi nii waaw su ma jógee yeewoo moom su ma sangoo ba kii ba pare damay jël benn banaana lekk ko teg ci benn pomme dal di dem jàpp daal di naan ndox après jàpp dal di julli quoi daal di dégg jàmm parce que encore fois xam nga lekk bu diis ci koor pour man da lay gën a indil problème rek daf lay sonal lekk gu diis googu parce que diggante boo xoolee heure bi ngay dogoo fi ngay réer ak fi ngay xadde dafa amul espace te defe naa ne ñi néngu ci wàllu médecine xam nañ ne lekk diseere ko ba mu tëdd place ba jeex nga doog a lekkaat mooy gën quoi waaw waaw euh, Babacar koor moom bu yàlla ne wàññi leen lekk bi rek du pour xiifloo ñu par la force am na lu tax mu tax mais nag bu fekkee da nga bëgg rattrapage journée bi moom du daal di sotti si guddi gi. dañuy jaaree foofu noonu daal di dem ci Modou Lo mi nga xam ne ñàkk na waajuram bu góor ñu koy. Euh, jaale di ko ñaanal uh, fi mu tëdd gënal ko foof fi mu jóge yàlla jégal ko daal di koy dugal fi nga xam ne ni mooy àjjana fi daw si Babacar waaw amin la ñuy wax parce que loolu mooy li am ci àjjuma alxames jàpp àjjuma ji ñu passé muy Modou Lo bu ñàkk way juróom di papa Gora Lo ñu koy ñaanalaat yàlla yërëm ko ti jégal ko bi mu amee nag wax dëgg yàlla ñi ko war a taxaw taxaw nañ ko parce nga xewle say mbokk ñu ñi nga bokkal liggéeyukaay ñëw defe naa loolu ku ko am sa veut dire que fa nga nekk yaa ngi fay def lu rafet te defe naa kera ay mbokkam kenn desul waa làmb ji kenn desul yaa ngi dégg ndax gis nañ Balla Gaye gis nañ Modou Lo no safla gis nañ Eumeu Sène gis nañ gis nañ Gris Bordeaux gis nañ Boy Niang maanaam bu ma limee danaa juum gis nañ Lac de Guiers 2 ñoom ñëpp ku ci ne kenn desul ku ne sol nga sa dàll ñi dem ci armée li ñi ñëw këram loolu nag defe naa moo tax ba ñoom milieu bi ñu ne lu luñ ko gën a rafetal doyul adversité bi na yem ci sport rek mais ñu bañ di dugg ci loo xam ne maanaam leneen la lu bokkul ak adversité bi te defe naa ne moom tamit boo xoolee li tax ñooñu mën koo ñëwal yaakaar naa loolu moo ko ji moo leen ko ji ba tax ñooñu mën ko ndax nit ñi am nañ fulla bu toll ne am na loo ne soo leen ko dee wan ah mën nañoo maandu ci say mbir Modou Lo na wax dëgg yàlla lamb da koy def ba mu saf-saf waaye bu dul lamb moom doo ko dégg ci dara nit ku yaru la macha di ko jaale waat di jaale ku mel ni tamit Youssou Ndoye di xaritam di léppam di basketteur di sama xarit di ko jaale képp ku nga xam ne nitam la waaye ñoom Papis ñoom Ibou Laye ñoom Baba xam nga Mor Cissé moom tamit maa nga koy jàll di wax ne que daal góor gi tamit xel dal na ci moom ci weer wi mu dëddoo et puis tamit seere yi ñu jot am ci moom ci nangoo liggéeyam ci yara njabootam ci bëgg diineem parce que sa doom nekk li mu doon te yow kenn xàmmewu la ba pare ngay liggéey ba ni nga dëddoo àddina ah loolu ay safay duñ am na sama genre yi buñ seen doom meloon ni tey Modou Lo dañuy lal canapé na ca ker ga di njoowaanu waaw mooy lool di naanum soow mais nag loolu moo lay wan ne mag ñi moom yar bañ leen yaroon ku ci topp rek yow doom ji doo réer kon ay doom yi mu fi bàyyi yàlla na leen yàlla dimbali ñu dese barke góor gi barke alxuraanu karim amin Babacar léegi ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ni ñooy suivre seen revue de l'arène di leen jox rendez-vous suba incha allah euh, si leewtoo point net ci Leewtoo TV. waaw Leewtoo TV ak Leewtoo point parce que Leewtoo point tamit am dafa amoon ay quelques kii mais reprendre at nañ ko ah yaa ngi dégg kon foofu tamit nañ fay xaar ay xibaar Instagram bi tamit nañ fay xaar parce que dama fay ñëw dem ñëw naa fa ak Lirou Diane nañ fa lu neex a neex wax di ñëpp jàmm di nuyu képp ku mën a doon ak fa mën a ne ci àddina bi rek di wax ne que daal yàlla na Sénégal am jàmm àddina bi am jàmm te corona bi dem te ñu bàyyiwaat encore waaye xel ci li ñuy wax ndax ma Marie Xemes Ngom Ndiaye tey ni mu waxee ah mooy loolu am na loo xam ne nag ay so lu ëpp tuuru waaw lu ëpp tuuru nañu respecté sunum réew respecté seste barrière yi am na solo